bon pour dire vrai nag artistes yi pour ma wax la dëgg kenn réeróowu ci kenn réeróowu ci. kon da ngeen di kii. waaw yenn saa showbiz moo koy laal rek ñu jaay ñu jaay suñu ay produits. defante yenn affaire kii génnee nga génnee. xam nga kii nga kii nga def nii mais ñun ñëpp kenn réeróowu ci. Hmm. la preuve bis biñ ma jàppee képp kuy artiste sénégalais que mu nekk Pape Diouf que mu nekk Wally Viviane ñëpp ñëw nañ tribunal seet si ma kon ce qui veut dire que ni ñun musique bi mën nañu xumbal neexal mais ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi yor nañu numéro dañuy déggante dañuy messageante dañuy vocalante mhm. dañuy demalante dañuy dikkalante donc yenn saa nag day neex pour ñu jaay suñu produit mhm. ñu def yenn affaire yoo xam ne dina créer buzz dina créer tension am diw indi diw am diw andi mais bu lépp passé mhm. artistes yi ak mbër yi ñooyam kenn réeréwu ci. mais est-ce que yéen a ngi xaar inconvénients yi nekk ci ginnaaw loolu. yéen da koy def pour seen business. mais ñi leen di topp jàpp ni que par exemple ñu ma joxe Sidi eh, eh, joxe exemple par exemple parce que amoon na ay jamono loolu lañ doon gis. Mm-hmm. su fekkee vous en tant que artiste da doon def loolu pour yéen seen i poche seen business alors que ñi leen di suivre jàppee leen comme référence ñoom ñaar du ñu laale koo gis am na ay soppeem waale am na ay soppeem fii di jóg am na soppeem titi am na ay soppeem ay de Samb Viviane mais ñi ñi ñi ñi ñi ñuy topp ñun aussi dañ leen koy wax dañ leen di xamal ne lii showbiz la dañuy kaf dañuy foo dañuy ree mais bu lépp passé xeexuñu xuloowuñu te geeruñu ndax ñoom dañuy gis ni bu waale amee dëj dañuy gis fii di jóg day ñëw taaw def jàllaabeem ñëw jaale ko. Mhm. dañuy gis ni Sidi Diop dem ba mu amee problème waale ñëw na tribunal ba ñëw taxawu ko. comprendre nga dañuy gis ni diw bu amee dara barki mhm. Dembo Ndiaye bi Viviane xewlee Grand Théâtre gis nga ma yéeg def wàcc après waale yéeg def donc ci ci ci close yi ci ginnaaw lu nit ñi dul gis dañuy gisante dañuy kaf dañuy foo dañuy rey donc message boobu noonu jàll na jàllaat ñoom xam nañ ni dañuy dañuy business rek mais ñun ci suñu biir amalante wuñu benn benn rànk. benn xaar ma ay xarit lañu ay frère lañu. mais showbiz bi ñaaw na de. ah <laughs> showbiz bi ñaaw na non non showbiz moom. showbiz moom loolu yàgg na ci yàgg na ci xam nga du Omar de xam nga ni sax ñun suñu bos tàngul. tàngul de. waaw ay ci xew nii yëpp. ci li ma billaay ci li ma fekkee dégg naa Omar Pène ak Youssou Ndour. ñun egguñu leen fii ñun jegewul sax xamul ko dindi après université dañ daan xëy di xeex suba ba ngoon jot ndax dañoo bëri woon ay fan Omar Pène xam nga. nga dem ci beneen côté bi boo génnee ci temps bi nit ñi di xeex ndax Youssou Ndour. après ñu def seen album ëllëg si biir pour wàccee tension yi. après ñoom ñaar ci lañ defee ëllëg ci biir. pour pour kii gis ak euh, ndem si yàlla Thione Seck. lu ne lu ne xew na fi gis yooyu noonu. mooy nekkal showbiz mooy xorom si xam boo demee ci ak Messi. boo demee ci làmb ji. comme combat lu mu am am am am dayoo. équipe bu ne Modou Lo ak Balla Gaye nga gis ni làmb dundaat na. boo ne mu mel ni nga ne Milan enchaîné Inter rek wala. ma merci ah. <laughs> voilà voilà donc fépp foo dem rek fépp foo dem day am. ñaar ñoo xam ne day am yenn gudd yoo xam ne ñoom ñaar rek la ñuy tudd. Mm-hmm. dañ leen di tudd am diw indi diw mais ça ne veut pas dire que ni ñoom ñaar dañoo réeroo. dafa am benn lu pas mal yi wax sànq lu am importance euh, mu tudd du méngale sa xëy na du kii mu tudd la tudd Ndiaga Mbaye ñu xam kan mooy Ndiaga Mbaye xam naanaan bi mu doon xam bu ñu demee ba Sidi Diop ñu tudd ko mu def un peu parce que moom xëy na tàmmul déglu musique lu bëree bëri mm-hmm. mais bu ñu la dégloo rek effectivement xelam dafa dem ci Ndiaga Mbaye mm-hmm. waaw que man Ndiaga Mbaye bokk na ci ñu ma influencé pour ma dugg ci musique ok parce que bi may gën a nekk xale di nekk ci ko école yi moom rek laa doon topp donc raison pour la laquelle bu may woy tu sens que ni Sidi Diop il est trop traditionnel que mm-hmm. moderne parce que man ay ñoom yande koddu kinne laam mais surtout nag Ndiaga Mbaye Ndiaga Mbaye laa ëpp li ma doon déglu sama enfance mhm. looloo tax loolu ma màggaale ko mhm. waaw Ndiaga moo tax yow ci sa biir album la ñuy sentir benn sa touche xaadim mhm. moderne la mais mais d'habitude booy def booy def concert wala yooyu day xaw a loolu da ciy xaw a day xaw a manqué waaw waaw boo xam nga concert dafa xaw a dafa xaw a ute tuuti bu may doog dugg mën naa def tuuti traditionnel mais xam nga concert moom ambiance waaw il faut nga ambiance parce que génération bu nekk ak li ci xew. njaaga bi muy woy morso yooyu. Mm-hmm. da ko woyoon parce que jamono jooju xalam moo amoon ak i ndënd. mais dañoo dañoo ñëw ñun moderniser. da nga ko moderniser mooy morso comme jaabira mm-hmm. jaabiraa moom sa njaga mbay la ah, traditionnel cooli cooli léegi mu leer man ma jël ko moderniser ko créer ci benn fecc pour mm. génération bi nga xam ne ñoom laa tombeel mën a mën a mën a adopté loolu mm. Mm. waaw looloo tax ñuy jël morceau mag ni di ko jéewaat mais dañ koy moderniser ba nga xam ne jeunesse bi ñëw di ñu di ñu di ñu seetaan dinañ ci gis ñoom seen bopp